di la ziar muy imam Diop mu nga xam ne tey mooy nekk ci jumaa ji nga xam ne mooy jumaa sant yàlla de alaaji paati Kër Masaar ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ñoom fii muy sunu imaam ki doon wax jëkk wax muy Ibrahima Mbeng ki si topp muy Nooru Seydou Nooru Taal di famille Cheikh Oumar Fouti Taal yàlla dëkkaloo ñu fii ci quartier sant yàlla de ki ma dendal ni muy imam muy del muy euh, Bilal Ibba Amadou Diop a ngi nii Papa Ñaŋ a ngi nii Oustaz Diallo ku lim juum ñoo fi ñun la yàlla samp si jumaa ji ñu nekk fi ah wax dëgg yàlla taxawaay bi rafet na mag lu ko war mooy lii rek mag dara war ko leela ji wax lu ko war mooy def lu baax pratique ñu topp sa ginnaaw mun laa roy tegu ci yoonu diine l'islam loolu nag ñu ngi ci sant yàlla di ñaan yàlla mu dolli ñu ko ci daraje yonent bi barke bis bi yàlla mën na ko am na ko yàlla na ko yàlla defal ci daraje Seydina Muhammad dégg nu ngi daal ci euh, li maam be nga wax wax dëgg yàlla trente jours nga nekk di ci pratiquer loo xam ni jaamu yàlla yi teg leen si yoonu siraatul mustaqim imaam yàlla na yàlla defal la jàmm defal ko bépp jullit lépp loo fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu ñun nag li ñu war mooy lii ala jam ne mag lu ko war mooy def lu baax wax lu baax ku ko def rek échec nga papa ñu ngi jëf sa taxawaa rafet na ndax yow tam bi nga fi ñëwee jóge grand yi fi ñëw fii c'est lépp loo xam ne sa xawoon la ñun lëndëm tey taxaw nga ko ndax lii mooy mag kon yàlla na yàlla dafa la jàmm ak sutura man mi wax nag c'est le conseil de quartier c'est le président commission jumaa yi ñu ñan ñaan yàlla ki nga xam ne tey moo fi nekkoon di Famara Géeju ak alil Bada ñu fi nekkoon doon suñu délégué yàlla na yàlla jéggal leen ak bépp julit ci barke sayna Muhammad yàlla mën na ko am na ko yal na ko yàlla def ci dara yor sa laay allahumma salli ala wa barakatuhu Eh, ginnaaw bu ñuy nuyoo di sant yàlla di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, di ñaan yàlla subhanahu wa taala eh, li ñu gi yàlla yàlla nangu suñu koor lépp liñ ci jaamu yàlla yàlla nañ ko yàlla nangul boo ko yàlla na ko yàlla fula ni defal ñu ko defal mboolem jullit yëpp defal ko tamit suñuy njaboot di santaat bu baax di julli si yonent bi sallallahu alayhi di tamit di ñaanal tamit waa jàkka ñaan bi ñu ci jiital imaam eh, macha allah comme ñu ko ñuy waxee taxawaay bi rafet na parce que moom képp kuy jullit di nga ko tiitaloo képp kuy jullit di nga ko tiitaloo tamit di nga bëgg tamit ku ko jege tamit ndax borom xam-xam la macha allah tamit te xam tamit ki wow ci lépp lu mu xam mu ngi laa bi nit ñi biir macha allah moom tamit dañ koy ñaana yàlla subhanahu wa taala yàlla yàggal ko suñu kanam yàlla barkel njaboot gi moo xam li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal defal ñu ko defal ko mboolum jullit di sante tam wa jàkk ji yeb di ñaanal tam suñu papa mi alhaj mal Malick yàlla yàlla imam tam yagal ko suñu kanam mu yag ñoo jita ñu yag top ko di sante ñep di gërëm ñep di gërëm tamit jeunu gox bi wax deug yàlla ay jaamar lañ wax deug yàlla ku am jeun yu melni wax deug yàlla sa xel walna warna dal ño xamanteni dañu nekk benn ñoom ñooy feesal yàq lépp lu ñuy liggéey fii ñu taxaw ci wax dëgg yàlla ñooñu boo leen amee da leen di ñaanal yàlla yàlla daf leen ay mag daf leen ay magum lislaam eh, ñuy sant rek di gërëm xam naa fu mu toll ni waxtu yi dafa xat eh, ñu ñaan yàlla subhaanahu wa taala rek yàlla nañ yàlla nangul yàlla yàlla nangul yàlla bu mu nekk suñu mujjanteelu koor bépp yiw bu ci nekk ci weeru koor gi yàlla nañ ko yàlla defal boo defee defal ko suñu njaboot defal ko mbooleem jullit wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mboolem waa jàkk yëpp nag nag góor ak jigéen mag ndaw ñëpp la ñuy boole cant gi waaye nag dañ ci jiital ci ndigal imaam dañ koy defee ci taxawaay bu rafet matal matale na li mu daan def ci jàkk ji ndax dafa am lu mu dafa def lu yombul bayaan 30 jours loo wax tey boo léegi doo ko waxaat dafa yombul te yàlla may na ko loolu def na ko noonu bi ñu doore koor ga ba ba nit ki jeexle biig kon nañu ñaan yàlla yàlla def ko yiw may ko weer sutura dooli xam-xamam waaye it waa jàkk ñi nga xam ne ñoo di ay mag ñi yàlla dooli seen sutura may leen wér yokk seen taxawaay imaam kontaan na ñun waaye it ñun kontaan ci moom ndax ànd ak nit ci jàmm ak salaam ba fa nga àgg moom nga fa àgg yàlla dimbali leen nit ngi matal ci jàmm ak salaam loolu mbégte de kontaanal suñu diggante ak imaam tey def yàlla daal dogal loolu kon imaam ñoo ngi lay sant di la gërëm di ñaan yàlla ñu teyewaat lii déwén def nañ ko ay at moo tax ñu desiwaat it ñëwaat ci kër gi bu ñu mësaa génne ci kor korte gi rek dañuy ñëw fii jotaay yi deux minutes lay doon ñu ndokkalante suñu biir moo tax it ñu desiwaat ci jotaay bi parce que yéen it ndok feddaliwaat loola moo tax ñu toog fii feddaliwaat suñu kàddu ci yooyu di la sant di gërëm di joxe kàddu gi nag nga xam ni moom mbégte rek moo tax ñu toog kon nag ñaan yàlla fekk déwén yàlla kenn defal mu jaay Moustapha yàlla ba kenn wute wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi sant biram uh, waa jàkk ji yëpp ñoom yëpp kontaan nañu ci ñoom ñu tàmbali imaam Diop boo ci gën a tuuti ci jàkk ji ñu ngi leen di sant di la gërëm ba ci bilaal Eh, defe nañu comme ni ñu toon doon defee rek di topp ginnaaw imaam doyloo ko doy ñu ci ñaanam ak waaraateem ak di ko jàppale ci fan na fu nekk te def na ko encore comme ni ko doon defee comme na nga nu mu ko defee ah ñu ngi ñaan yàlla yàlla na loolu yàgg yàlla na gudd fan ñu teewee ay ay koor yu bare bare bare bare bare ci darajay rasulullah ñu ngi sant yoo xam ne encore ñi taxaw ci weer tedd wi di ñu indi ay ndimbal ay suukar ay lu ne imaam ca lu ci dañ ci waroon indil ay ay ay social mais moom dafa bokk ci social yi léeg-léeg mu yenn la ay ay ay ay teraanga ah loolu yëpp ñu ngi ci sant di ko gërëm di ci ñaan yàlla ñun ñëpp képp ku ci am lu mu ci doon tawat ak lu ko doon gàllankoor yàlla na ko yàlla faj yàlla nangu ñaan yi ak sarax yi affaire yi du mën a gudd a ah, loolu rek lañ ci doon sànni asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. sant di leen gërëm ñaan yàlla suñu koor bi yàlla yàlla nangul suñu naafila ak suñu farata yëpp yàlla yàlla nangul eh, sant leen gërëm leen yiital ci imam ak suñu góor gi Pape Malick ñaar Malick Niang ñaan yàlla yàlla yàggal fii suñu kanam ñu sant ñëpp daal. baal ak ñëpp di baalu nit yëpp ak asalaamaaleykum ni maam nag danaa jaar ci turam wax dëgg yàlla ndax ku mel ni man moom imaam dafa dalal sama xel ndax jamono jii nuy dund xëy bu ma li ma ataka néew waaye dama am fekk lu loo xam ne dafa dafa rëy man ma fekkaat lii koo xam ne bii diina ñor na la jamono bi sa xol na ndax li nga gis ci ko yi yaruñu leen te ñuy doomi diine te am nit ku baax te yàlla ko ci diine dafa jafe lool xamuma ko fenn man ci téere yi ustaas li mu doon wax léegi ci jàkk ji jàpp naa ci tuuti rek loo xam ne dolli naa daal sama xel 1961 jumaa julee ndër Baye Niass boobu la gën di ndaw jumaa Medina Kër moo la jiite muy àjjuma ji mujj ca di ju tabaski woowa bés boobu moo lu jiite juma toog waxtaan ba mu jëyee ca tàkkusaan la fi war a gonte dem Makka bokk na ci ña ko fekkee woon loo wax la imaam Ibrahima Niass doon wax ca jamono ba temps bii la la mel ni kii di wax bokk na Baye Niass li doon wax nit du ma lu baax ma fayee ko defal lu baax danaa ko bu mu mu laa fay yàlla wane sama cant ca la nga ma defal ci biir waxam Euh, kàddu yii mu dégg ci jàkk ñi nag toll gànnaa ak li ko ak li nga xam ne entourage li li ci ji moo ma fàttali kàddu yooyu loolu dafa doolee daala suma xel pour que lu xam ne diina ji mu moo mooy tax nit a baax waaye ñàkk bi mooy tax nit a bon bu nax suñ bopp nañ yar suñ njaboot ci diina islaam te yëngu ci àddina yëpp amul benn njëriñ buy tax mu dal lu dul islaam mu gaaw mu yeex dinaa fekk li ma ko fekkee pour jàmm am rek jàmm yàlla fa nekk waaye pour jàmm am sa jàmm yàlla nekk lu fa yàgg dafa nekk tey lu fa yàgg euh, kon imaam euh, nga doolee takkaat sa sa sa ndigg doolee waaraat say waareel bañ a xaddi ndax yàkkamti kat day yàq lu bari te lii nuy xam ci nu jamono bii di ko xeeb sunu waarekat yii sunu maam yonent yàlla non yonentu la lu ngeen ko waxee yonentu la nit la waaye su junni nangam ak ak nangam bu ngeen am amu ko woon te nit ñi boo pour nga xam ne am nga am ngeen dara li ngay wax duñ ko lépp sa kanam mais boo génnee loolu nga fekk ci mbedd bi li wax nag dafa mel ni bëgguñu ko ndax sa xol sag yow muy waaraat mais boo tuuti rek gis ñu koy def nga xam ne lañ loo wax moo mel noonu du ko du ko nangu sa kanam nga dugal mais bu yàggee wax am na lu ci dégg loolu nag moom moom laay wax soññ sa bopp di ko soññ képp ko wax ci diine nga bañ a xànn te nu yaaraan njaboot yi man na suma xol dafa fees dara suma xel wax dëgg yàlla imaam wax imaam mi li ma ci ñaan rek yàlla nu yàlla xool te déggal topp lu ñu nga xam ne noo ko fekkee ndax nag léeg-léeg wolof lay wax ne nit bu amee xéwal du ko xam ba te ko ñàkkee te am ci diine dégg gu baax am fi su nga koo wax duul lu yomb yàlla daajale ko si moom yàlla cal su ko yàlla na ko yàlla yàlla ko jik ñun ñi nga xam ne noo nekk ci ginnaaw yal na yàlla xonte dégg ak topp loolu daal moo ci suma wax yal na yàlla li nga xam ne kii ja jaar na naa naafaleeg koor ye jëf yu baax yëpp yal na ko yàlla nangu yi nga xam ne itam manqué na ci biir te nga xam ne mos a lig doomu aadama la yal na yàlla muur ko te sapp ko awlu yi ngeen wax ci korite yi wax dëgg yàlla ku mel ne man bi mu waxee démarré ndax yaakaar moon ne nit ñi àgg nañ ci jéem a yàq diina ci jamono bii ci ci ci ci ci li seen wax wax man mu ci dara waaye li ngeen di wax mu di ko dégg dama ko ce gëme amul kenn ku mos di songu lislaam am ndam du mos am kon nag ki nga xam ne moo taxaw ci tëbisal li ci wax loo xam ne bii mu ngi mu ngi bégal diine mi nga xam ne mu ngi jàjj nit ñi kooku nañ ko ñaan yàlla kàddu boobu mu gën a tëgër nit ñi gën ko mu a dégg ndax yàlla dolli na dolli na mbay na maanaam noonu ndax noonu ci sam yàlla nag yàlla dolli la ñuy wax ak suñu njaboot yi nekk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 ببركة الله مصلي على سيدنا محمد الفاتح المخلوق القاتم لما سبق الناس الحق بالحق الهدي لا تارك مستقيم ولا هالي مقسم بحق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المخلوق القاتم لما سبق الناس الحق بالحق الهدي لا تارك مستقيم ولا هالي حق مقسم يا سلام اجرم يا ريون يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام yàlla na yàlla mooy nu teewee ko déwén te déwén dàq ren duñ jaamu mu ñu mu bari yàlla na yàlla nangu def ko barke liñ ci yàq yàlla na ko yàlla jàng li ci baax yàlla na ko ful ma dafante ko juudi ko wa karam ko yaa armal ramin bismillah tëy امر يا ربنا اللهم يا مقلب القلوب قلوبنا على الايمان امر يا ربنا اللهم يا مقلب القلوب قلوبنا على الاسلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على ما تحب وترضاه امين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين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 وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين